malaaka bu ci nekk mu jàng suratul fatiha benn yoon su noppee mu jàng sabbi son rabbikal aala ba saaro jeex benn yoon su noppee teg ci qul yaa jeex benn yoon bu noppee mu teg ci qul huwallahu ahad ba saaro jeex benn yoon mu mel ni fukki rakk la rakk bu ci nekk mu jàng suratul fatiha benn yoon su noppee mu teg ci sabbi isma rabbikal aala ba saaro jeex benn yoon su noppee mu teg ci benn xul yaayal kaafiruuna su noppee tamit mu teg ci benn xul la ahad saaroo jeex mu ne képp ko xam ni def na naafile gi dana mel ni koo xam ni danga ngaa moom àddina ak li ci biiram te lépp nga def ko ci yoonu sunu borom subhaanahu wa taala te dees na ko tabaxal ci araf ci nekk dëkk wu rëy fee ci àjjana waaye dana mel ni ko xam ni jaamu na yàlla sunu subhaanahu wa taala juróom-ñaar fukki at yoo xam ni dafa war bëccëg ya taxaw naafile guddi waye dana melni ko xamni jang na alquran karim temerion yon dem ajmak temer yon umra temer yon te des nako ko bind tiyaaba joo xam ken xamul nu mu tollu ku du yalla sun borom subhanahu wa taala te bala mu fatu dana gis këram gi nga xamni moy mooy ci moy xam mu faatu dana ko gis te yomal xiyaamit du fa gis lo xam lu koy ragal ma lu koy jàq lolu ba keroog muy tab aljana bu ñu ñaan yàlla suñu ma subhanahu wa ñu kàttan ba ñu julli ko te mu nanguñu ko bi jaahi saydi saadaati alayhi xayru salawaati wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa